jaa naxe dana ngi lëmbe kër gi gundi tal dala ki ñetteel rama caam rama caam mooy jekki defar si kër gi nee leen ko amari gan gi ci kër gi mere naa la trop mere naa la de. waaw chéri tam ci lan. ya gëna xam na xam na lepp yow bo demee ba sëriñ bi nekk dila wax ay ay ay defal ma li na la dila la na a yoyu ha ah nga ne ko arrête. yow xana xamone job Diop genn yow sama laxas nga kay dang ko kay wax mu wa waaw tam man xawma wonne woon nga mu xam ko. wa ba ci lan mais dang koy wax deug sëriñ bi mo doxul limu doxale mo mo ñaaw ndax sama ak yow xam nga dara warumul ka yaq ndax xam nga ne yow xale nga man mag la te lépp si sutura laa koy defee mais am na yoo xamante ne bu si nit nar a engagé ma dal si kawam te sëriñ bi moom dinaa dal si kawam fen rek la fi nekkee. ah man su ma ah. sañoon daal nga bàyyi mu sedd. bañ du ma bàyyi dara mu sedd sëriñ bi dina ko digaale man bu baax a baax dara laa du bàyyi mu sedd. sëriñ bàyyi mu sedd rek. ndax lan ah damay bañ mu liggéey ma wala mu def ma lu bon. kan moo la mën xamul tos laa lay wax ne waaye yow. waaw ah, su ma sañoon daal sedd rek. yow xanaa gëmoo ma ba ma ne nag kii xamul na fara xamu ko kay nga war maa mën a gëm ndax man mako indi sama kër xam naa ko bu baax xamul tous xala wala kassel yow na sa xel dal. bàyyi mu sedd rek chéri yow tamit. hi li lima la wax li sama problème la man mako duggal sama biir kër xam naa ki lan la man ak luma mënul ki tiagala serigne bi tiagala ba doole la kuko mu jëm la nangu sama loxo loolu du yoon te duma ko may dara. wa bébé tamit korité bi passé na mi ni nii du gisaguma dara dara dugaloko te dama lay wo do ma jël. daa demul noonu son portable moo planqué wu. Mm. waaw te am na sax nu muy demee daa am loo xamante ne moom laa yaakaar du ma ne cinquante pour cent bi sax mais soixante pour cent bi yow laa koy jox. Mm. moom koy maa la ko wax. Ah, lan ma jaral la xam nga daga di xale. Mm. tam dama di mag. dafa am nu ma war a doxalanteeg yow il faut ma lay defar <laughs> ngay comprendre. tamit nag ah loolu neex na kon. Ah, chéri hmm, kon neex na dinaa xaar. incha allah dina ñëw. nañ jéggante. d' accord dinaa la waa kay jërëjëf merci beaucoup waa kay <laughs> allah ji daaw la jëm ci mbër la. waaye yow lu xew xanaa da ngaa bëgg alku. ma ne yow yaa bëgg alku yow. sa bopp yaa bëgg alku. wàccal ci suuf yow nga si suuf ci suuf. yow si suuf a suuf. ma ne ma wàcc ci ma ne yow nga wàcc ci suuf a nga yàgg na yow. yow yaa alku yow mii yaa alku yow yaa bon. yow yaa dama lay boole sama jinne yi de. yoroo duul yoroo ko. xaala wala kasiroon topp la. man ngay wax man xam naa si dara léegi. man kay ma ne duul yorok xoolal te bu ma wax nga may wax sa kii sa di ma xool sa bëtu looy yi ñurus la laay def léegi. man ak yow yow léegi ma ne maa tey na la duul laa wax. maa tey na la duul. yow xanaa ay jinne yu la gane si wala. jinne yu ma gane si mooy la nga def jinne yooyu ñoo ñëw si man na gane si ma. lu ma def lan laa def. yow xale bu jigéen naka laa lay booleek moom mu ñëw fii ah, ma boole ak moom nga ñëw di ko làmbaat ah ba pare naan kon ah ndegam am nga borom am nga borom kër. mais loolu amul wala jinne ya doon wax ak moom de. da ngay fen yow mii la yow dong la. jinne ji ñu wax nga naan ko am ah, ndegam mos ngaa ñam mag ma ñam ma. yow la la nga kay jinne ji mag yi di ko pour mu bës nga mu bës la. yooyu yëpp jinne ji la doon waxal. boobu da ngay fen yow xam nga benn affaire ñu wax xarbun moo doon wax ak moom. ma ne xarbun xaw ma xar xartaat laa si yemale. tey ji da ngay génn kër gi laa wax. bul wax loolu ma ne tey da ngay génn kër gi doo fanaan. waaw léegi baax na léegi même bu fekkee boo may génne na nga ko rafetal ndax gone yaa ngi ci. rafetlu ma dara laa rafetlu. ey ey ey boo ma ey. ah, ah. <laughs> ah dimbale ma dimbale ma. yabaate suturaal ma rek amul sutura dara ba ngay def loolu mënoon nga sànq sa bopp sutura. Ah! waay waay waay joxal joxal laa wax. Eh, ma ne ko damay woo de. Ah, ah, ah, si biir. gàggaawal may ma jël sama caleçon ma ne say caleçon danaa ko sànni mbali yi xam nga ne caleçon yi araam la si biir. rasoir ma ne rasoir bi doo sotti wattu de. kooku doo balaa ma kaa damay woo xale yi ñu la léegi génn kër jafe si nga doon génn kër. sa ay kii nag ñu Jangan, jangan, jangan. day day day day